rahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala wa sahbihi wa xadimihi maa ngi tàmbali samay kàddu ci turu suñ borom di wax bismillahi arrahmani rahim di sant suñ borom di julli di sëlmal ci ab yonantam ak ñoñam ak i saxaabaam ak liggéeyaakonam ba ak képp ku méngak moom ginnaaw loolu ñooñu ñoo ngi nuyu mbokk yépp nuyób islaam te mooy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala nu am mbégte fas yéene dellusiwaat ak yéen ci sunu fukkeelu jataay ak juróom ñeent ci alwirdul maxuus noo ngi woon ak yenn ci charte wirdu maxuus jotoon nañoo ñëw ak yéen ci dalilu man raamat dalil sart yam ci indi kon tey eh, dañuy fa yéene ànd ak yéen ci iqnaul adim bi nga xamee ne as cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana moo ko def te jëmale ko ci wirdu Maxuus moom itam sart yam ci indi nee na bokk na ci sart wird wu tedd wu barkeel wii boroom mm, bañ a bàyyi jàng alxuraan ci kem kattanam waaw kon bokk na ci sart wirdu Maxuus jàng alxuraan mu ne ku mokkal alxuraan nag faw moom mu jàng ñaari isib ak nis ci guddi ak bëccëg ànd ak witar loolu mooy lan mooy guddi ko jot nga naafila fukki rakka fukki rakka yoo xam ne nii euh, euh, da nga koy jàng euh, ñaari isib ak nis nga xam ne mooy fukki robo mooy comme ni nga xamee ne weeru koor ni ñu naafilaa ci jàkk yi nga xam ne guddi gu jot ñu naafila ñaar rakka ak nisaf ki mokkal alxuraan charte la ci moom bu jëlee du maxuus mu di ko def noonu su paree nag soo ko def soo ko indi euh, safaak witar mm-hmm. bu rawee ci guddi gi mën nga koo fay ci bëccëg gi mu ne waaye nag koo xam ne mokkalul ku mokkul alxuraan nag moom Euh, moom lam ma ko rek lum néew néew mën na ko def ci diggante waxtu yooyu kon na nga julli fukki rakka fukki rakka yi loo mën ci alxuraan nga tere ko ci soo ko def sa faak witër soo noppee tamit ba gi loo mën ci jàng alxuraan sa kemtulaay kattan nga def dana gën a leer sax bu ñu demee ci maj moo xam bi dama ko bëgg a indi foofu waaw damaa bëgg lu ci ne téere bu moo tiim rek la mu wax ma yem ca moo tax waaye kon danaa gën a saraa fii waaye xëy na jataay bii di ñëw bu ñu ñëwee ñëwee ci maj ma ba euh, foofa la mu gën a détaillé ci ki nga xam ne mokkul alxuraan la mu war a jàng su dana gën a leer kon bokk na ci sart yi ku mokkal alxuraan mu naafila fukki robo te loolu mooy ñaari isib ak nis ci guddi gi bu la rawee mën nga koo def ci bëccëg gi waaw ku mokkul alxuraan nag a ah, fukki rakkaa yooyu na ci jàng la jàpp ne ci moom wala ci diggante ñaari waxtu yooyu ak mu néew néew kon loolu mooy benn sart bi mu indi moom ixnaawul xadim muy jàng alxuraan nga xam ne waroo bàyyi jàng alxuraan waroo taqali ko moom sa kemtulaay kàttan mooy benn bi bi ci des nga di ko jàng ci guddi ci julli ci fukki rakka muy ñaari isib ak nisfu di fukki euh, rakka rakka bu ne mm, benn robo ku mokkul alxaan nag lu jàpp na ko def ci rakka yooyu ñaareel ba bokk na ci sart yi takkook jullik mbooloo ci góor ñi ndere nga am ngànt kon bokk na ci sart wirdu maxuus julli jullik mbooloo ndere danga am ngànt bokk na ci sart yi wirdu wi nga di ko def ginnaaw tàkkusaan ak ginnaaw suba mu ne waxuma waxtaaxu loolu mooy ay waxtoom mu ne bokk ci sart yi lu li war ci bépp mu kàllaf ci lu jëm ci pas-pasam ni mu war a fase ci yàlla atay laab ak julli ak yëmmëng moom kon sa faratay jëmm rek xamlu ko fa euh, loolu daa bokkoo ci charte yi waaye mu ne bokkoon ci charte yi nga taqoog ñi nga xam ne dañuy topp yàlla sa kemtulaay kàttan ak noo ko mënee taqoog nit ñu baax ñi nga xam ne dañuy jaabu yàlla di topp yàlla nga taqoog ñoom waaye ba ne ba tey bokk na ci charte bi nga bàyyi bàkkaar yi yu mag yi alkabaayir nga bàyyi bàkkaar yu mag yëpp mm-hmm. am na ñu wax ne juróom man na juróom-ñaar ñi am na ñu ko yóbbu ba juróom-ñaar fukk moom yi nga bàyyi yooyu wéeru jëm ci yàlla ànd tuub. ak yu dul yi ci yu baax yi kon yëpp mu wax euh, ci suróot yi la bokk jàng alxuraan naafilaa ko ci guddi ga sa kemtulaay kattan ba mokkale alxuraan soo mokkalee alxuraan euh, ñaari isib ak nis moom ngay naafilaa ci fukki rakka soo mokkal alxuraan fukki rakka jàpp ne ci yow nga tere ka ca bu la rawee ci guddi gi mu nga ko fay ci bëccëg gi bokk na ca sart ya takkook jullit mbooloo lu dul da nga am ngànt bokk na ci sart ya di ko def ginnaaw takkusaan ak ginnaaw suba ñooy waxtoom dana gën a leer ci yii di ñëw dana gën a détaillé ci yii di ñëw bokk na ci sart ya xam lu li war ci bépp xam lu li war sa faratay jëmm atay gëm yàlla atay julli atay laab ak yi aju ci yooyu yëpp xam lu ko bokk na ci yooyu sart ya takkook ñi topp yàlla bokk na ci sart ya euh, bàyyi bàkkaar yi mag yi tey tuub kon gis ngeen sart yi même jullit bi nga xam ne sax euh, yorul maaxuus yii yëpp dafa dafa war a nekk da caa war a nekk même ku yorul maaxuus war ngay jàng alxuraan war ngay naafi la guddi même ku yor maaxuus it war ngaa xam safara tey jëm même ku yor maaxuus it war ngaa tàmm di julli ci euh, mbooloo même ku yor maaxuus it war ngaa ba bakkaar yu mag yi kon gis nga ñu bare bari dañuy ragal sart yi waaye sart yi même boo jël yu tamit daf daf laa daf war yow jullit bi ba tey boo doxee tuuti ci Ixwaanul Xadim mu ne bokk na ci ba tey ci sart yi boo koy def nga nekk nga nekk ak laab laab gu wér gu mat mhm. laab gu mat sax mu ne waaye ba tey bokk na ci ay tegginam boo koy def nga jublu penk booy def ma Maxfuus nga jublu penk di ko defee ci barab bu laab ak it nag bañ bàyyi xel lépp lu lay jax-jaxal lépp lu lay jax ak bañ a xool euh, lépp lu lay jax di ko def di seetaan télé sa xel ne ci télé ba lañuy bañ wala dégg rajo wala lépp loo xam daal mën na la mën naa occuper sa xel euh, bokk na ci teggin yi mm, nga bañ a xelawlu loolu ak bañ koo xool mu ne nag euh, ak jaamu yàlla du ko dagg lu dul da wax du ko dog lu dul da ngaa mm. mu ne nag booba day wax charte yi ak a teggin yi ci wirdul xaatam waaye lam ko jeexle nag dane teggin yi yëpp moom itam euh, ni mu nekkee fii noonu la nekkee charte ci mboolem wirdu yëpp noonu la nekkee charte ci wirdu yëpp kon gis nga euh, charte yi moom la borom iqnaawul xadim fi xawa bi xawaay awraadul xadim indi jataay bii di ñëw incha allah danañ gën a yaatal euh, ci yeneen yi ndeem neex na sunu borom ba tey bokk na ci sartu yi hmm, te nga wax sax charte yi ñaari xaaj la hmm, charte yi koy taxa wér ak yi koy taxa euh, mat bokk na ci charte yi koy tax a nga am al isnul xaas waaw wirdu wi nga am ndigal jële ko ci koo xam ne nii am na ndigalu jëfe ko waaye am na ndigalu joxe ko te kooko jële ko ci ko am ndigalu jëfe ko am ndigalu joxe ko ba mu àgg ci sëñ bi waaw kooku jox la ko loolu dafa bokk ci suratu siyaan yi Euh, mi ngi noonu kon loolu lu am solo la kon faaw nga jële ko ci euh, ku am ndigal koo xam day am ndigal daa am xam nga nit mën naa am ndigalu jëfe ko te am ndigalu joxe ko waaye nag ki koy ki jox day am ndigalu jëfe ko ba noppi am ndigalu joxe ko moom itam kak ko jox mu am isnaat boo xam ne day àgg ba ci euh, Cheikhul Khadim kon loolu dafa am solo mooy tax nga jariñu ci ni nga ci war a jariñoo hmm, am ku am ndigalu di ko jëfe am ndigalu di ko joxe hmm. moo tax hmm, dana baax ku lay jur jox wird maaxuus mu wax la silsilaam ba ca euh, sëriñ bi ba tey bokk na ci sart yooyu nga di ko jàng ci waxtoom te ma wax naa ko sànq waxtu suba ginnaaw jàng alxuraan waxoon naa ko sànq sa kemtulaay kàttan noo ko mëne jullik mbooloo la ca nag mooy ci jàkka fekkee nag mënta nekkit nga mu doon jullik mbooloo naafila am na ñoo naafila fukki rakka ngay jëf rakka bu ci ne nga jàng ci benn rabo muy ñaari isim ak nisfu nga soog a def safa ak witar nga xam ne euh, ginnaaw gee lay doon bu dee ki mokkul nag alxuraan moom fukki rakka yooyu euh, lu mu ci jàng baax na ci ni ko borom ixnaawul adim indi waaye dana gën a leer ci bu ñëwee ci ñeneen ñi lañ ci wax kon da jàng alxuraan sa kemtulaay kattan ba noppi boole foog nag di naafila fukki rakkaa yooyu taxoog nitu yàlla yi ñu topp yàlla xam lu li war ci say farata sa farata jëmm nga xam lu ko bàyyi bàkkaar yu euh, mag yi mhm. soo koy jëfee tamit bokk na ci teggin yi nga nga nga yéene tëbbu ci sëriñ bi ak teegulu jëmmi sëriñ bi sa xel sa kemtulaay kàttan loolu bokk na ci teggin yi laab laab gu mat mhm. toog jullu penku lu dul da am ngànt waxoon naa ko ak baña a déglu mm, wala xool yoo xam ne mën naa yàq sa concentration mën naa yàq sa teewlu kon yii la daanaka moo ñëw ci euh, sunu jotaayu tey bi kon jotaay yi di ñëw ñu woy ak yéen ci yeneen sart yi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.